Nous voulons dit élection exactement est-ce que élection Cheikh euh, des élections de qualité élection de qualité peu importe l'essentiel les Sénégalais veulent aller à l'élection hmm. voter pour un nouveau président. Ah c'est ça la volonté des Sénégalais. nous may ñu quoi. qu'on passe à autre chose Il n'y a pas que des élections dans la vie il n'y a pas que la chose politique dans la vie Diambar pendant des années, nous sommes dans une hmm. crise politique. Maintenant, nous sommes entrés dans une crise institutionnelle. Il faudra que qu'on restaure la démocratie. Il faudra qu'on refonde même, qu'on rebâtisse nos institutions pour avoir des institutions fortes que personne ne pourra contourner au gré de nos désirs politiques hmm. ou de nos schémas politiques. Hmm. Et je crois que nos institutions, le Conseil constitutionnel a montré qu'il est toujours là, qu'il joue son rôle et qu'il a toute la plénitude de son pouvoir que lui confère la Constitution.

da nga war a ñu suñu calendrier électoral lii la chaque cinq ans jour sangam bii mooy jour élection. Hmm. loolu mooy le respect du calendrier républicain du ay du ay xam nga correcte dañuy ñëw tarixa bu mu neex nga wut sa sa bis. mais bis bi bisu ñëpp la. calendrier électoral ça doit être respecté. Elle n'a pas été respectée par qui Par Macky Sall. Le dernier dimanche du mois de février. Oui, mais Macky Sall, moi, le degré TASCO. moo moo tas mbapat bi moo tas làmb ji ñu ne ko jëlal beneen bisu làmb mu ne noo xaar damay dem waxtaan ak magu démb yi CNG na ko non non bis bii la jàppal léegi lool leer na léegi sa nopp ah <laughs> voilà CNG bi na ko CNG na mënoo fee jàpp làmb lu dul balaa deux avril hmm. waaw ñi muy tendeefal yéex a jàpp waa CNG jaar fa jàpp dat moom mu mujjee jàpp waa CNG na ko léegi comme jàpp nga lañ bàyyi bi ñu jàppoon jàpp ci bi nga jàpp c'est tout nous sommes fatigués Djambar. Hmm. Ouais. les gens nous am tey ben désir le vote l'État. Abraham Lincoln da symbolique une carte d'électeur est plus puissante qu'une balle. Hmm. là où il n'y a pas de carte il y aura des balles. on préfère avoir des cartes plutôt que des balles parce hmm. que la carte électorale. Euh, euh, d'abord c'est c'est ton appartenance à ton pays. la carte électorale elle exprime. tes choix elle exprime tes espoirs. La carte électorale, c'est à travers cet acte citoyen que tu manifestes hein, euh, euh, ton désir de sanctionner, mm. positivement ou négativement. Mm. On peut sanctionner positivement pour dire, ouais, ils ont bien travaillé, on va les laisser. Mm. Ou alors sanctionner négativement, ils n'ont pas bien travaillé, on a besoin de changement. Ça, c'est l'électeur qui le choisit. Nous avons un cadeau. Ben, le citoyen a un cadeau, élection alors c'est clair euh, ñu ñëw exactement si euh, li nga xam ne moo koy si euh, le le le nouveau gouvernement ki nga xam que moo di Sidiki Kaba daal di koy li nga xam

non Macky Sall bu man gisuma parce que hmm. bu fekkee rattaxalu ko il va se tirer une balle au pied. il hmm. n'a pas intérêt à à mettre les pots de banane euh, sur le chemin d'Amadou <laughs> parce que ak fi affaire de nii ni dara. Hmm. c'est inéluctable c'est-à-dire je n'imagine pas par exemple Macky Banyadja a jàppale Amadou Ba wala mu dindi Amadou Ba bu il se il se suicide politiquement il ne va pas le faire maintenant man jàngat bi ma ci am c'est pour permettre à de pouvoir être libre et libéré pour pouvoir battre campagne. Donc Macky est dans une logique électorale. Amadouba est exposé son programme. Mm, son programme mm, mm. Diomaye a programme programme programme pour programme effectivement c'est quoi l'offre politique. donc euh, hmm. les hommes de terrain. Hmm. Euh, ils ont besoin que Doudou soit à sur le plan <laughs> politique Motax ñu hmm. tant que les ministres ils sera à Dakar ou dans des missions gouvernementales. donc pour moi c'est un gouvernement ñom gouvernement de combat. non combat. de combat et d'attaque. Les, ah, ils sont pas d'attaque ni de <laughs> combat maintenant ils sont dans une mission d'intérimaire donc là ils gèrent les affaires courantes. donc man là la ko donc du point de vue politique ñi nga xamante ni ñoom lañ gën a yaakaar sur le terrain pour ñu apporter en mm. plus à Amadou Ba. Mm. ñoom la libérer. la ñu la ñu libéré. alors man noonu laa ko jàngatee quoi. ma ko comme que dañu am benn problème wala daf ko bëgg mm. parce que Macky bu ko defee il va couper la branche sur laquelle il est assis. te dafa mel ni instant bi ñoom dañoo gën a en fait reporter li nga xam ne que moo ces élections. ah man de gisuma loolu. le camp de Macky. ah gisuma ko de xam nga nag kuy dem ci làmb da nga naan maa fi mën. waaw hmm. ah, mais l' essentiel la jamono ji leen gën a pare que 24 février. Hmm? mais jamono ji leen gën a pare que. waaw mais 24 février tam dafa mel dañu waaxu gars yi de parce que fi ñu leen xaar woon conseil constitutionnel jàpp 31 fi ñaan le 2 ñi naan ñoom ñëw def le 24 dindi Amadou Ba lancé la ñu am. Euh, voilà est-ce que yeneen candidats aussi ils sont prêts. Là, carte gi waaw parce que tamit est-ce que ñëpp pare nañ aussi. merci beaucoup loolu yëpp rek ci ay mbiru ci ay politique mais là, le plus important. Euh. Euh, président buñu buñuy xaar ñun moy ko xamné dina djublu ci suñuy mbir. li mm. nga xamné dina jital réew mi nga xam dina teg mbir politique. et tay war nañ def ay réformes. Mm. telle sorte que président bi su ñëwee yoonam du nekk ci politique mu libéré de parti politique parti politique nañ dem feulé ñu mm. xëccoo président mën consacrer consacré wu ci liggéey parce que li ñuy xaar dafa bëri. te fi ñu jëm quoi le fait que mu donone le chef de parti. oui mais mom ci assise nationale dañ ko waxone ko waxoon mais mom hmm. nangul won jël et puis jëloon na fi commission nationale de de réforme des institutions Amadou Mahtar Mbow won ko ñu jox ko ay dogal mu jël ko ranger ko ci tiroir hmm. donc euh, on s'est retrouvé avec un président de parti en même temps président de la République donc demain il faudra que nous songer surtout aussi suñu ay institution nan lañ koy dëgërale ensuite teg nañ fi institutions c'est des institutions budgétivores yoo xam amul un impact direct comme le conseil économique et social. Mm. le haut conseil des collectivités territoriales. Mm. gisuma impact boo xamante ni war nañ ko am. Mm. soxlawuñu gouvernement wu cent ou cinquante ou un ministre-conseil, c'est pour jox leen ay mais nous rationaliser les nga xam comme mooy koom-koomu réew mi te jublu ci li nga wutum technologie bi nga xamante war am surtout lu jëm si wàllu àdduna bi tey 2.0 tout ce qui est numérique tay ñu ngi wax Sénégal am pétrole ñu découvrir nos euh, réserve de gaz yi nga xam war nañ ko am. war nañu jublu ci renforcer suñuy capacité ci suñu ay doom ci njàng mi ci xam-xam ci wàllu xarañ ba nu mm. mënal suñu bopp mm. mais ensuite koom-koom googu mm. di war a jóge ci gaz gi balaa ñu siy dugg contrat yi ñu am ndegam si à notre faveur bu ñu fa jëlee koom-koom boobu nan lañu koy séddalawaatee askan bi mooy cette redistribution des des de nos richesses ba sénégalais bi fu mu nekk mu yokk ba yëg ko ba yëg ni moom ci réew mi la bokk ba nga xam ni ndaw dootu fi génn ne damay dem bitim réew wuti leneen donc nag Euh, ñun fofu lañuy xaar. et loolu nag ci programme aussi dafay baax ñu yam di rek xastante waxante. Hmm. faut que ñun di programme yo xamante ni. c' est c' c' c' des programmes smart quoi des hmm. programmes spécifiques mesurables atteignables réalistes. Hmm. dans le temps le temps c'est 5 ans voilà. alors merci beaucoup en tout cas ñu lay feul bu baax a baax a baax Cheikh euh, ça a été un plaisir bàyyi nga daal avec ak l'ensemble de notre spectateur. comme d'habitude, Sénégal 5 euh, mom xam nous cœur là et puis mm. on a l'habitude de nous voir ici donc mm. euh, l'enjeu le véritable combat c'est une équipe jeune et notre ambition c'est faire mu box sur les meilleures chaînes de télévision au Sénégal et on compte sur euh, le public mm. pour que ngeen abonné ngeen partagé on vous donne rendez-vous eh, inshallah di ngeen ñu fi gis même ci biir koor gi sax bo matul dañuy tek ndogu bi fi ba paré rek enchaîné jaajëf euh, merci beaucoup Cheikh Omar ñu lay jaajëfal bu baax a baax un baax saa plaisir c'est hein. que yow li nga xamné que modi waxtan wi donc li ma conseil c'est une émission li nga xamné que modi le point de l'actu en ce samedi 9 mars 2024 euh, merci encore une fois de votre fidélité mais